dëkk bi yëpp tàggoon nañu coono fan lañuy ñuy jëlee soow mu baax ndax Cheikh Sow indi na solution bi Cheikh Sow ñëpp naan ko neex soow Touba gi yëpp ak li ko wër moom la ñuy wër Cheikh Sow neex soow soowam baax na set na tey neex na boo amee xew soxla ci soow ak lu mu bëri bëri quantité boo ci soxla boo ñëwee ñu jaay la nag neexut wax ndax fàllu euh, wolof fa ko fi jële wolof fa ko fi indi woon wolof ko fi wolof moo ko fi jële ndax mën naa waat ci yàlla ni keroog bi muy faatu mbir wolof la doxe woon ndax diggante bi mu wax ni ci la faatu ak diggante bi nu waxee ci wolof mu gàggante walla nu waxtaan ci ci wolof mu ni mu ngi dem ak fa mu doon demee lépp ci wolof la woon kon xëy ma gontu ma ngontum wolof la woon kon wolof a ko fi jële euh, ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax fàllu nag man euh, du won sama xarit benn xarit bii la ma wax li ko sëñ bi waxee woon moom ma ko waxal boppam ma ko bu wanale ak nit ñu jaxasoo lool ni ma jaxasoo woon ak moom jaxasoowu ko ci jamono ay jamono jaxasoowu ko xaritam bii muy wax ndax booba xamuma ko sax man ma wan ko sama nit niko ki sama xarit la fa saasa la ni ma duma ma sam xarit man ben xarit dong la am aruna la tuddu sama kóllëre nga loolu laa degone may wax ak nit ñi waye kóllëreem laa won go xamni gi gu dëgër bop ñepp xamone ma ak mom ku ko xam-xam ma ak mom euh, lima xamone ci mom nak moy li señ bi wax rek jikko yoyu jikko yi nga xamni ni la laa ci mom lenn la waxone lu wóor loo xam ne lii dama koo xamoon moo ma ko jàngal ci laa jànge lépp loo xam ne lii moom laa jàng moom laay waxee ak yéen yii itam nii moom laay waxee déglu leen ko lii rekk la ma waxoon te moom laa jàpp bu baax nite mooy natt ak niit ba ràññee ëpp ak cëkk te taamu lu mat sëkk xam naa déggu leen ko nite mooy natt ak niit ba ràññee ëpp ak cëkk ndax nga mën a ràññee lu mat sëkk lii la wax lii nag moom ku ci jéema a góorgóorlu foo àggul yowa waaye foo dese ginnaaw it yowa lii ci lii la doon dund ci lii la doon def guddi ak bëccëg amul leneen <clears throat> looloo tax bi mu des euh, jàkkaarloog <clears throat> njaatigër réew mi ab lay Wade loolu rek la ko mënoon a wax mënu ko woon a wax lu ëpp lii ci nite ndax ku xàmmewul ëpp ak cëkk jarul jaruloo wax jarul wax ci loolu la nekke woon fàllu di woon jullit yaa ko wax wallaay loolu dëgg la man ceddo laa ma ak moom doon ànd may dund sama ceddo muy dund jullitam maa ko xam mu xam xel ni ceddo laa ma xam xel ni jullit la ci lu wér dëggul la def gu wér dëggu la def gu wér boole ak jub booleek mando ñu bari xàmmewuñ ko Fallou Cissé xàmme yooyu yépp xàmmee diggante jub ak maandu xàmmee diggante maandu ak jub xàmmee diggante jub ak wóor lu mat a la ah boko ko laajoon ñett yépp dana la wax benn bu ci nekk fu mu ak fu mu yem ak moroom ma xam noo le woon ne itam maandu ak jàmbure lu wér sëkk ngoog nit ñi dañuy nit ñi ndeke jàmburee gën fàlloo ma ko jàngal ci lu ko ma xam ko mu digganteem ak jàmbure mu ne maandu boo ko maandu boo waddalee fii xaalis ki maandu dafay jël xaalis bi wuti kum ko jox ku kuy boroom waaw loolu kay lu baax la mu ne ma jàmbure nag bu fekkee ni danga ngaa waddal xaalis daf ko fay wacc ndax du yëfam si yoonam nekku ci nit ñaa ngi bëgg maandu guddi ak bëccëg ndekk jàmburee ko gën fuuf te ñoo ngi koy jàngale ñun ñëpp ku nekk ku nekk maandu lay jàngale téere bi sax maandu la wax euh, yàlla maandu la wax yonent bi maandu la wax dof bi maandu la wax ki nite ki maandu la wax yëpp waaye buñ xamoon jàmbure bàyyi maandu moo tax ma toog bu mu yàgg ma woy ko pàllu dama ko woy ci dundam ni ko bind koo man maa lay woy yaa koy bind bu ko defee nun ñaar ñëpp ñu bind kii comme dof nga ni ñëpp jàpp ne dof nga sëñ Cheikh Aliou maa ngi lay nuyu bu baax ñii dañ fee nekk fàllu jàng ci ñoom raw leen di leen njukkal saa su nekk te ñoom xamuñu ko àdduna kenn xamu ko waaye nun ñee doon ànd ak moom nekk ay dongoom noo xam fi mu teg ñii waaye ñëpp defe ni ay noonu ñii leen te noonu xamuñu ko ñoom sax xamuñu ko mu teg leen fu rëy ndax ñoo tàmbale ndax fàllu xamoon na ni làkk wolof wii ci jamono ju mu toll la tàmbalee ca njaajaañ ba léegi fu mu toll am na ku nu ko yoral loolu tax wolof mel nii te ñépp xamuñu ko te fàllu rekk xam ko saa su nekk am na ku fi nekk Kocc Barma ñëw na fii euh, sëriñ euh, euh, kan sëñ Moussa Ka jaar na fi jaar na fi ndaamal gosaas jaar na fi waaw ndaamal gosaas laa bëggoon a wax ndaamal gosaas jaar na fi sëñ Moussa jaar na fi sëñ ma ah, Masamba Jaara Mbay jaar na fi ah, sëñ Babacar Mbay jaar na fi Cheikh Anta jaar na fi sëñ Mbay Jaxate moom laa wax Babacar ah, ñoom soxna Aram Fall ak ñoom seex doore ñëw kenn ku ci nekk ca fa nga toll ca jamono ja nga toll yow dong ak ña nga nekkaloon téyengal nu wolof ba fallu dikk fallu ñew mat ñëpp kenn ku ci nekon, fa nga nekkon mu fekk la fa ñew ci sak tas langga ga te mëno ci dara ma la wax li kenn ku ci nek ci ku ñuy tudd ci ñom kenn ku ci nek way wo way wala wax jo wax ba nit ñi yem ko fallu taxaw na ci sawat way wax wo xamni ne mi mënoo ci say wax ta laqar ci wax wo te nak man ma ci xam dara bu ki ñewé da ngeen xamni limu wax limu wax deug la fallu du morom motax mo wax ko ni ko ceddo dafa nangu di wolof te it nango dekk ci jolof di fa njaajan terele wolof pek fa wolof don fa kanas kanas dafa wute ku dof xamul ku xam nit nit ku dof mam lay nuroog dof dof la dafa sore kanas dof day berok tolof tolof du xof lu bor lu bax te du ko ciof fàllu buux ko du tee mu jof dofub wolof la dum kanas teel naa jóg di wër wolof ku laaj mu tontu mel ni dof tey laaj ku laaj ba jóor wolof te dof ba mel ni am kanas sëñ Sàmba Jaara xam wolof sëñ Babacar way ci wolof warekaana nu yéem ci wolof sëñ Siise ñëw di am kanas kannas mu peeg léppi wolof romb ña daan woy ci wolof bëtër pekkub wolof wolof teggi na tuuma dum kanas bargee waroon a aar wolof sëñ daara àngu mel ni dof sëtumaam moo sol yérey wolof moo ko yeyoo kii du kanas way gudd la nit ñi danoo defe ni dof la te dof dof lu baax la loolu la daan wax dof ki nga xam ni mooy waaw du ci xeeb lenn ki xam lu baax te du ci xeeb lenn xam lu bon te du ci naw dara koo kookoo dib dof li ci def ten koy woye dof am kannas la xàmmewuñu dof ak kanas jër ngeen